aussi les sénégalais lenn bëgg naa ngeen xam ko bëgg na sax ngeen partagé ko li may ñaax suñu dirigeants yi gérer sport dootuma waxati sax coach Aliou Cissé nag man wax naa wax a wax ba jasit bëgg génn sama gémmañ dara changé wu ci côté boobee muy il faut ñu am ay joueurs de couloir lu ba <laughs> looloo nekkoon sunu fort salaam gars yi bëgg naa leen nuy ko ci nekk seen tur ak seen sant ay flèche actuellement am nañ la am nañ Sadio Mané mais dañoo war a xelaat avenir xam nga ba ma fiy toog naa leen Aliou dafa war a woo Assane Diao jéem ko convaincre balaa Espagne di ko këf lii laa doon xalaat Sadio Mané ak Ismaïla Sarr mënuñu à tout moment di nekk seen meilleur niveau loolu mënul nekk football ak loolu ñu ànd tey da nga ciy nekk suba doo ci nekk le les fautes c'est pas de problème bi c'est pas de leur faute ñoom ñaari ñooñee ku leen di remplacer loolu mooy problème bi te coach bi moo waroon fexe convaincre Assane Diao mu fexe ñëw un joueur de couloir gone gu ndaw am avenir Espagne di ko bàyyi xel et tant d' autres yoo xam ne ay joueurs de couloir lañ ay euh, Amath Ndiaye Diédhiou joueurs yoo xam ne ay flèche lañ te ñun Sénégal loolu nekkoon suñu fort flanc yi. sunu fort loola nekkoon sunuy fort mooy joueur de couloir yi Sadio ba mu ci toll bu defee accélération def passe décisif def centre retrait force day am ku fekkee soit Famara Diédhiou wala Boulaye Dia kenn fekkee terminé action bi a Sarr bu percuté bu defee accélération dugg surface force dina def passe décisif ba am indi penalty looloo nekkoon suñuy fort ñu ci avance di gagné actuellement nag dem nañ ba benn moment boo xam ne dañuy toll gis nga li ma mënta d'accord mooy que nga toogloo ab joueur de couloir dem dugal ab milieu terrain te nga soxlaa ab bi soxlaa ku la yóbbul bal bal bi du avancé dafay circuler ci milieu terrain bi rek te loolu dañ cee war a jukk fu Sadio Mané génnee il faut mu benn joueur de boo xam ne concurrent direct am doon ba nga xam ne moom lu Sadio Mané def moom mën na def lu ko raw baa mu def lu yamamaay lu tolloog moom wala bu koy jege bu koy bu koy def bu mu ko sori mu jege ko wala bu Ismaïla Sarr génne ñu utiwaat beneen joueur de couloir bu identique ak joueur bu mel ni Ismaïla saar France. boo génnee seen seen joueur de couloir yi koo ci génnee man nekkuma seen équipe de dëkkuma fa mais seen joueur de couloir yi ñëpp ngay maîtriser koo ci génnee di nga xam ka ban joueur de couloir mooy dugg duñ soxlaa bii mukk di génne joueur de couloir di dugal ab milieu de terrain wala milieu défensif ak ñoom seen non non manque de joueur ma de couloir moo war a alluser def yenn changement yooyu malgré Sarfaa sax mu def lu ko neex mais image de France nga génnee Kylian Mbappé mën nga dugal Barcola la Kylian Mbappé def mu def lu ko raw wala mu def lu yamamaay ak loolu. côté gauche bi nga génne Ousmane Dembélé mën nga dugal Olise ñoom ñëpp ñoo identique seen joueurs yi ñoo identique seen football yi nga génne Kylian Mbappé mën nga dugal Marcus Thuram nga génne Kylian Mbappé mën nga dugal Coman te loolu mooy seen fort dañu koy exploité jour de couloir yi am Espagne nga génne Nico Williams mën nga dugal euh, kookee naan ko Ayoze Perez nga dugg génne Nico Williams mën nga dugal Olmo nga génne Nico Williams mën nga dugal euh, Fermin Lopez nga génne Nico Williams. mën nga dugal temps dootu jour yoo xam ne nii mën nañ exploiter la nga xam ne Nico Williams mu ngi ko def eh, Lamine Yamal nga génne ko mën nga dugal Olmo Lamine Yamal nga génne ko mën nga dugal Ayoze Perez mën nga dugal tant d' autres joueurs yoo xam ne nii mën nañ def différence ci flanc yi mais Sénégal loolu la amul boo génnee Sadio Mané ban joueur de couloir ngay dugal ñun ay attaquant pointe lañ am ak ay défenseurs centraux yu bëree bëree bëri latéral droite sax benn lañ ci am de métier te Formose Mendy c'était un défenseur Ismaël Jacob Seck c' était un euh, excentré bu ñu transformé def ko latéral gauche ñun ay latéraux de métier te dinaa ci defaat vidéo spécial comme ni ma defee joueur de couloir flange excentré yi de métier. loolu tamit ci problème équipe nationale Sénégal am te loolu démb la woon tey soog ñëw ñun dañoo jël coupe d' rek ràngatiku foog ne ne daal ñoom lu li des ci année yëpp ñoom ñooy gagné te équipe dafay toll moment boo xam ne dootul nekkati ci meilleur loolu faaw ñu d' accord ko te loolu da nga a préparé avenir bi lii a taxoon ñu doon wax bu ñu daan def vidéo gars naan ñu ñëpp mënuñoo ñëw ci équipe nationale Sénégal lii rek a taxoon ñuy wax dem nañ benn moment boo xam ne dañuy soxlaa mën naa ni transition dañuy soxlaa euh, fraîcheur dañuy soxlaa lu bees actuellement Sadio Mané ak Ismaïla Sarr il faut ñu am ñu leen di supplier mënuñoo football match yëpp danañuy sonn ak li ñu football seen i championnat il faut qu'on se dise la vérité amuñu ay joueurs de couloir c'est ça problème te c'était ça nos nos atouts looloo nekkoon bu njëkkaan. boo daan génne Sadio di nga jaaw Diao Keita Baldé et tant d'autres joueurs yoo xam ne ni mën nañoo gérer couloir bi mais Sadio bu génnee kan ngay dugal ay Habib Diallo ngay obligé di ko dugal wala ngay dugal ay ga ay ay ay ay euh, Nampalys Mendy ay Iliman Ndiaye loolu il faut ñu liggéey ci bu baax a baax baax baax mu ngi noonu gars yi jàmm ci yéen di jéggalu nag bëri wér suñu xalaat la ñuy joxe ci équipe nationale Sénégal pour équipe bi mën a avancer il est temps. il est temps il est temps il est temps dañoo soxlawaat suñu meilleur niveau équipe jàmm ci yéen gars ba beneen yoon ci yeneen vidéo